jangeen jëf jangeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimilah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees dañu am yéenay faram fàcce ko musiba am ci suba tey jëlee fële nga xam moo di ca Tambacounda eh, benn bâtiment yi fa fa eh, na ndax lu ci toll ak ñaari ci jotee ñàkk seen bakkan ci nga xam ne nii moom lañ ci indi dogal dogal atte bi rat na imam Alioune Badara Ndao eh, yoon bàyyi na ko ñetti ati kaso moom la procureur sàkk woon ñu tëj ko ko gannaaw ba ñu ko tuumalee loxoom dafa laale ci wàllu terrorisme waaye kii di way attekat bi di juge Samba Kane euh, mujjeewu ci koy topp euh, bu Maxtaar Joxaane moom ñaar fukki ati kaso lañ ko daan ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni euh, moo tukkee ci kii di yi nekkee ci kër docteur yi te bootu ci ginnaaw mbootaay googee ñoo booloo joxante dig daje ci suba tey jii la fële ci diwaanu Pikine gi nguur gi nekkee jëm ci seen tawat yi la ci biir xibaar yi da ngeen ne nii moom lañ ci rotal bon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum bisimilah ci xibaar yi musiba am ci suba tey jile fu li nga xam ne nii moom moo di ca diwaanu Tambacounda euh, benn batiment moo fa màbb gannaaw kon taw yu metti euh, yu fa nga xam ne nii daanu na fa bilan bi nag diis na ndax lu ci tolloog ñaari doomi aadama nee nañ ñoo ci jote ñàkk seen bakkan euh, sapeur pompier yi nag ji nga xam ne ñu ngi doon jokkoo suñu ngoo bii di Alassane Diallo ñu ngi doon def seen kéemtalaay kattan ngir mën leen a génne kon ci suufu batiment bi Euh, mu doon nag loo xam ne nii du ñàkk daañu ci dellusiwaat ak suñu naatango bi di Alassane Diallo. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi waa ànd gësëm gësëm nañu tey jii diwaanu Pikine mboolem liggéeykat yi nekkee ci kër docteur yi te bootu ci ginnaaw mbootaay googee ñoo booloo joxante di daje ci suba tey jile te diwaanu Pikine sol seeni yëre yu xonq cuur amal ab doxum ñaxtu di ñaawlu patiral gi nguur gi nekk jëm ci seen tawat yilee mbaalo jaay caam ak ñoom ne dàqu ñun euh, soobu ci seen fukkeelu plan action ak benn su fekkente ne nguur gi mi ngi wéy di leen tànxablu mbaaloo jaay caam ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo marché bu nga xam ni ànd nga sëm si sa sudee te moo ko organisé euh, li nga xam ni euh, ñoo fi ñëw mooy ñi nga xam ni nekk nañ dans toutes les régions dans tous les départements. liggéeykat yi aussi ni commencé ci liggéeykat communautaire agent santé communautaire ba agent municipal ba ci fonctionnaire ba ci décisionnaire ñëpp ñu ngi dajaloo fii grade ñëpp confondu loolu mooy caractère national bi moom mooy pluralité aussi suñu organisation. léegi nag ni ko waral ñu ngi nekk ci dixième plan d' action parce que defoon nañ juróom-ñeent bi mooy fukkeel bi ndax gouvernement bi dafa nekkoon ci pataaralam dixième plan d' action bi nag marché bi tey moo ko jeexal mais dinañu xarima ajuma léegi nag li ci am solo nag ñu ngi rafetlu décret bi gën a démb revendication yi mooy que gouvernement bi daal di génn li ñu naan statut fonction publique territoriale maanaam agent yi nekk dans les collectivités local depuis l coloniale ba léegi mu si am statut maire yi leen def loolu lu leen neex ñu subir lu leen neex loolu bu loolu weesoo ci statut personnel municipal nee nañu gouvernement bi na jéem a génne décret yi sur la sur le nouveaux corps de la santé ay la yoween démb conseil de ministre benn jàll na maanaam dañ doon ànd di gësam en tout cas boobu rot na am na yenn yoo xam ne rot nañu bu ñu demee ba préfecture dañ ko fa wax léegi waaye li am solo lii mooy dixième plan d'action bi des nag mooy ñu ubbi négociation sérieuse sur le régime indemnitaire parce que gouvernement moo noonu ne ñëpp xaar ñëpp xaar nañu waaye bi ñëpp xaar rek mu tànn ñenn amul mu leen buuxal amul mu leen boxal ñu ne loolu mënul nekk parce que mënuñu gën a bari liggéey bi nekk suñ kaw loolu moo war a ànd bi ñu war a gën a gësam mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Mballo Dia Thiam dogalu àtte bi rot na imam Alioune Ndao yoon mujjee na koy bàyyi fanweeri fanweeri ati kaso yu muy tëdd moom la procureur sàkkoo ñu tëj ko kaw gannaaw ba ñu ko ne loxoom dafa laale ci wàllu terrorisme waaye kii di juge bi daal mujjeewu ko fekk ci loolu yi nga xam ne ni moom la bëggoon euh, bu dee Maxtaar Joxaane moom ñaar fukki ati kaso lañ ko tëcc waaye ay soxmanam ay waaye ay soxnaam dañ leen a mujjee bàyyi euh, lu jëm nag ci procès boobu Issa Tine lañ fa yabaloon ginnaaw ay tuuma yu yàgg lool yu ñu ngàll ci ndoddam ay nañ ko ci arxames ji attekat bi Samba Kane daal di koy daan benn weeru kaso boo xam ne du ko tëdd ñu di ko tuumaal wàllu yor ngànnaay bu second degré daan bi ci gën a mag nag bi ñu tekk mi ngi dal ci ndoddu Maxtaar Joxaane attekat bi daal di koy daan ñaar fukki atu kaso yoo xam ne da koy tëdd boole ceeg ñu di ko liggéeyloo liggéey bu mu sañu ta bañ Abdou Hakim Mbacke Bawo Mohamed Ndiaye Ibrahima jàlloo ñoom ñëpp attekat bi daal di leen di tekk fukki atu kaso ak juróom yoo xam ne dañ koy tëdd Omar Yafa Abdoul Aziz Dia Abou Diallo Cheikh Ibrahima Ba ñoom ñëpp ñu daal leen di tëj fukki atu kaso Mamadou Lamine Mballo Latir Nia ak Saliou Ndiaye juróomi atu kaso moom la leen attekat bi daan waaye nag am na ci fukki nit ak juróom yoo xam ne bég nañu lool attekat bi daal di leen di bàyyi setal leen ci liñ leen doon tuumaal bokk na ci Kumba Ñang ak Ami Sall nekk ay soxna yu Maxtaar Joxaane Mariam Sow nekk seen njëkkee ba dara Sall Daouda Dieng Boubacar Décolle Ndiaye Oumar Keita Mor Mbaye Dam Mamadou Moustapha Mbaye Alpha Diallo Pape Kibili Koulibaly El Hadji Mamadou Ba ñu gën koo xam ci Mamba Moustapha Ibrahima Anne ak Ibrahima Ndiaye ñoom ñëpp attekat bi Samba Kane daal di leen di bàyyi jàpp ne liñ leen di tuumaal ñu ci dara bu dee Maxtaar Joxaane attekat bi lim koy tuumaal moo di ne dafa def ay mbir yu terrorisme boole ceeg booloo ngir def ay ñaawteef bu dee ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñu daan diggante juróom ba fukki atu kaso ak juróom attekat bi dafa jàpp ne ñoom ñëpp daal ñuy jëfe wàllum terrorisme ñenn ñi sax demoon nañu ca biti réew ngir xeexi ci wetu Boko Haram ñu fàttali ne Imam Alioune Badara Ndaw ñu ngi ko jàppoon ni ki guddeeki ñaar fukki fan ak juróom benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre atum ñaari junne fukk ak juróom mu di 2015 ca këram ga nekke ca ngaan ca diwaanu Kaolack mu daal di def ñaari atu kaso yu teg juróom-ñeenti weer ca mujjantal ga ñu daal di koy setal maxtaar joxaane moom itam mu war a tëddaat fukki atu kaso ak juróom-ñaar atte bi nag guddoon lool ñu daal di koy door ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre daanaka mu daal di dem ba ci juróom benn weer ñu daal di koy tëj ci alxames ji ay rongañ yu bari daal di tuuru ci tribunal bi ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ñu yëkkati turu yàlla ginnaaw bu ñu déggee ne bàyyi nañu imam Alioune Badara Ndao Euh, jërëjëf Issa Tine ñu ngi lay sant la gërëm kon mbokk yi mu nga dogalu àtte bi rot na kii di euh, imam Alioune Badara ndaw euh, kon yoon bi ko yoon bi ko ngëmban mujjee na koy ñebbi fanweeri atti kaso le procureur ko ko waaye loolu yi kii di way attekat bi kon mujjee wu ko cee topp imam ndaw bàyyi nañ ko kon mu ñibbi këram wax ci wàllum mango ak ñi nga xam ne ci yëngatu amoon na ji jaaxle loolu la def gannaaw ba nga xam ne ñi di waa Union européenne dañooy jàpp lenn ci ay conteneurs yoo xam ne jëlee woon nañ ko fii ci Sénégal yóbbu ko ca barab ba daal di koy yàq yàqe ndax nee nañu màngo jooju lee baaxut yóbbee doomi aadama yi ci yëngatu ci kër seen kàddu sàkku ci kilifa yi ngir lu ñu mel ñu xoolaat ko ndax ñoom amuñu lu dul màngo yi ngir dund ay jërigéey moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Nazib Sagna fédération dafa woote tey benn daje bu mag fii ci siège am pour waxtaanee mbiru màng ndax màng dafa am solo ci li ñuy bay ci réew mi ndax booy seet li ñuy bay ci horticulture yëpp màng kese kese kese kese boo ko dul jël ndax ëpp na cinquante pour cent donc dafa am daraja ci li ñuy bay ci horticulture donc màng ñu nag daf si am la bare loo xam ne dañ ko doon yóbbu bitim réew di ka jaayee surtout pays union européenne pays yooyu nag dañoo commencé di joxañ baaraam màng yi nga xam ne mooy jóge Sénégal ndax màng yi nga xam ne dafa am ay feebar yi nga xam ne weñu da koo laal muy jur yàqu-yàqu buñ si neme ko ñaar ñett euh, rek dañuy daal di wax ne mango def du dugg te boo yónnee benn kon mango def ci xaalis jënd ko ci béykat bi def ci xaalis fay ñu yóbbu ko ba foofu ñu ne mango bi dañ koy yàq parce que digg si nañ ci feebar xam nga loolu yàqu-yàqu bu rëy la te ñi nga xam ne ñoom la yàq boobu gën a di laal exportateurs yi gaa ñu ngi si mais béykat yi nga xam ne ëllëg si biir exportateur bu yàqee dootul mën a jënd ci béykat bi donc looloo tax daal ñu woote bu rëy bi bref ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi yëngu ci mango pour ñu waat naka la ñu fagaroo naka la ñu war a taxawee naka la ñu war euh, lëkkaloo encore une fois de plus boole suñuy doole suñuy pexe suñuy yéene ñun ñëpp pour que euh, problème manga Sénégal daal ñu mën koo soowee ba du bokk ci ëllëg ak si biir ñu ne Sénégal mangam bu mu génnati réew mi. askan wa dëkkee la ca kër mag jàpp kër magee ci Thiès ñu ngay samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci Sénégal la ñu bokk waaw am déet seen dëkk bi ak dayo gi mu am amul dara lu fa am du courant du kër docteur du terrain bu ñu mën a fubalee tax nag ñu booloo ñoom ñëpp wàcc ci mbedd mi takk ay sagar yu xonk cur di sàkku ci nguur gi rawatina njiital réew Macky mu wax ak ñoom lu ko mooy kat élection présidentielle yi di ñëw daañu ko du dañuy dem ca Thiès fekk fa Ibrahima Ndiaye. nee nañu sonn nañu tey nañu ci dund dundug wéreyaan gi nga xamante ni ñu ngi koy dund ci seen dëkk yooyee. muy Makka ak Kër Magey nekk ci commune Taïba Ndiaye askan ba fay yeewoo génn nañ seen patapataral bi ñu nekkee woon di yuuxu wàllu xaali aan mooyal seen kaddu. ku nu saafaraal sunu jàngoro lañu bëgg waaw sonn nanu sonn nanu daa mel ni gouvernement bi boolootuñu eh, ci réew mi te ci réew mi lañu dëkk fi lañu dëkk dañ ñoo nag boole wuñu ci dara ndax ñàkk courant rek waaye nañ ñu dimbali bu ñu ko mënee bëkk démb fii. ñangoor moo xëy daa mat ba pitaaw xar naran naa dugg sama kër fii la ko rey ma gas ko suul lépp lëndamaayu dëkk bi makka kër ma kaña lañ nu tudde kaña gu tëb fu li si bar yeeg mbët yeeg lépp fii la ñu ñëw waaw mënatunoo am ginaar mënatunoo am ginaar till yeeg lépp ñëw nañu ci dëkk bi dëkk bi lëndëm na fu ne jooy nañu ko fa waaw ba wuñu fenn waaye amuñu kenn kon le courant ndaw yi am liggéey usine baa nga nuy yàq télé bi seen nga ko nii bi nga ñëw fi nga jaar boo boo ñibbee fi mu ne seen digg li dañ mit du ab bërëb fajokaay buy dox du ab bërëb boo xamante ni ndaw ñi mun nañ fa tàggat seen yaram waaye tamit ngelaw ga nga xamante ni dañ ko fay nokki nekk na ngelaw gu bari tooke. case de bi nga xamante ni moo fi ne ban ko tabaxee ba tey kenn waxu ci dara commune rurale bi ñu bokk seetaan nañu ci fànn boobu tàllal nañ suñu loxo nag ba sonn waaye kenn wuyu wuñu si fànn boobu. waaye terrain boo xamante ni moom la ñuy fooyee di fi def entraînement ngir wér-gu-yaram gi mën a yokk amuñu ko. sunu garab yaa ngi ku mu sa xëy di nga am 1500 tey seen nga ko nii. usine bi usine bi. ICS ICS. ICS. seen nga mango jaa ngi nii. kenn munu koo lekk. gone yi wératul mag ñi wératul kenn wératul ngelaw laa ngi ndaa yi ndaa loo ci wubul ba tete day faam mel ne ab liquide ci ne. borom yi métier dong fi ne ñu jàng ba ne ra fi ne. alxuraan français jàng nañu lépp anglais sax jàng nañu ko. usine baa ngi nii yàq nañu sunu tool yëpp amatuñu dara kenn jëlu ci gone. Makka ak Kër Maguey ñaari dëkk-dëkkaan yoo xamante ni dafa mel ni gouvernement bu Sénégal dañu leen a fàtte bu ñu sukkandikoo ci kaddu askan ba fay yeewoo ñooñu sax nee nañu rek fu mu nekk nii bu fekkee ni gouvernement Macky Sall bi ñëwul rek xettali leen ci seen tolof-tolof yooyee élection 2019 yi soreetul su moytuwul rek dañ ko woon ginnaaw Thiès. Walfadjri yo TV Ibrahima Ndiaye. gannaaw ba ñu toogee ay weeru yàlla yoo xam ne ni amuñu ndox askan wi yow fii ci Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru bu leen yeboo fabu te xam ne ni courant bee ci nar topp li ko waral nag nee nañu ñàkkum ndox mi central courant ba nekk ca ca Sendou di jànkonteel la yóbbee askan wi yëkkati seen kàddu di sàkko ci nguur gi rawatina njiitaru Macky Sall mu wax si. ndax ñàkk ndox ñàkk courant loolu moom duñ ko nangul kenn Adja Tigi Danke Ba Mami Kanté reportage ginnaaw ñàkkum ndox bi am Sénégal temps yi yëpp dëkk bi mën na am tamit ay dog-dog courant si lu yàggul loole doon ay mbir yu jaaxal loolu askan wi. dafa métti nga wàcc amoon ndox amoo courant ak situation yeneen situation yi bon boo ko boolee day day xaw a difficile daal ñu ngi ñaan daal waaw ñu dimbale ñu daal vraiment métti na. métti na lool parce que tamit ay citoyen la ñu xam nga ci dëkk bi la ñu dëkk parce ñi ngi fay courant ñi ngi fay ndox parce que facture moom du ñàkk moom chaque deux mois ñëw nga fay xam nga kon war nañu dimbale ngir yàlla rek indi ñu dox bi indi mu courant bi. mu doon mbir yu tiital ñëpp ndax dina metti lool si nit ñi. ñii nii dañuy souffrir quoi dañu sonn ñu bëgg wuti ndox dañuy jël bi bidon di dem ci ay yeneen gox di fay ñaan ndox loolu du yoon courant bi bu ci bokkee du baax ndaxte ñun sama ay courant bi la ñu am guddi gi bu courant bi coupé du ñu gis mais il courant am quoi. étudiants yu nekk université Cheikh Anta Diop di xamle ne coupure courant yooyu le suñ naree amat dina tar loolu si ñoom. ñu dañuy jàng guddi gi te courant Sénégal dañ ko soxla bu ci infrastructure kii yëpp ci domaine yëpp courant presque bu dee si téléphone bi bu dee ci machine bi bu dee si télé bi bu dee si bon bu dee si lumière bi aussi dañ koy soxla voilà ce sera très euh, voilà dañ loo xam ne dañ ko soxla la daal. warul man a ñàkk vraiment l'état bi bu si mënee jàpp aussi mu jàpp si rek balaa délestage yi di ñëw. dina sonal population bi dina sonal quartier yi mais dina sonal aussi étudiants yi que étudiants yi tamit mën nañoo wax ne daanaka électricité bi courant bi ci ci lañ mën a jàngee parce que ci la ñuy mën a suñ machine ci la mën a doxee suñu lépp ci la mën a doxee parce que suñu njàng mi yëpp mu ngi nekk ci euh, comment dirais encore mu ngi nekk ci courant boobu noonu ci machine kon loolu bu coupé vraiment dina doon loo xamante ni nii dina métti trop. Senelec yëgal nañ ni xëy na coupure courant dina am ci dëkk bi suñ ko yokkee ci ñàkkum ndox bi. wi ay jafe-jafe yu bëri ñu fàttali ni yile xeetu coupure moo waraloon ñaxtu yu metti yi amoon ca 2011. Euh, Beydi Agne moo euh, muy njiital CNP euh, di conseil national du patronat du kuréel gi nga xam ne nii moom moo ëmb ñi nga xam ñoo di njaatige moo nekkoon gën a Walf Quotidien Euh, ci waxtaan wi nga xam ne jot na ko seq suñu naatango yi moom bay di añ profité na sax dal di addu jëmale ko euh, ci loi de finance rectificative bi nga xam ne woote nañ ko ni ki weeru weeru sulet 2018 bi Euh, muy nag loo xam dafay mandargal di dëggal jafe-jafe yi nga xam ne ni euh, entreprise yi nekkee fii ci biir mu ngi koy jànkonteel moom bay daañ profité na kon euh, daal di àddu ci boobu leen mu jàpp ne loi boo xam ne ni ay jafe-jafe képp la kon bay di añ moo nekkoon ganu ko Walf Quotidien moom bay di añ kon ay kàddoom ci kàllaama wolof daañu ci dellu dellusiwaat ci sunu yeneen i jotaayu xibaar Cheikh Agibou Soumaré mu ngi wéyal tànki ne mi ki mu amal ci kilifa diini yi le gannaaw ba mu demee fu la ci diwaanu Touba dem fu la ci diwaanu Ndiassane ah, moom jëwriñ ju njëkk jëwoon ci nguurug Abdoulaye Wade ma nga woon démb ca këram Monseigneur Benjamin Ndiaye mi njiital jàngu bi ay tànkam moo doon àggee ko yéene ki nga xam ni am na ko ngir senegal laata moo sàkku ci moom ay ñaan jëmb mbay Mami nuyo bu ànd ak yar ak teggin Cheikh Hadjibou Soumaré ak délégation wam nii la leen archevêque bu ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye teeroo ci këram ki fi nekkoon élimaanu jëwriñ yi ñëw gisee ak kilifa diine bi ngir rek waxtaan ak moom ci liy soxal jafe-jafe yi nga xam ne nii réew mi moom lay jànkonteel fi mu tollu tembe xam nga ne sunu réew problème yi am di nekk ci jikko yi nekk ci yorenu réew mi yorinu askan wi doxalin yi loolu jar na képp kuy doomu Sénégal nga xalaat ci ñu nag loolu laa bëgg a expliquer yi wante nag balaa ma koy def li ma leen waxee naa ci jiital nitu diine yi ndax dañu am seen cër ci dëkk bi dañu mën lu bare ci askan wi donc loolu moo taxoon ma ne dinaa ñëw waxtaan moom archevêque bu Ndakaaru di monseigneur Benjamin Ndiaye rafetlu bu baax a baax ñëwu Cheikh Hadjibou Soumaré si këram ndax jàpp na ne lii day wane rek cër bi nga xam ne nii kii fi nekkoon premier ministre jox na ko ko jox ko te tamit communauté bi nga xam ne ni moom lay jiite ñoom ñaar nag jot nañu waxtaan si lu ñeel ponk yu bëri. ci li mu wax te ma jàpp ko bu baax a baax mooy yar bi éducation dafa am solo ñu war def li li ñu mën. ba éducation boobu mën a jëm kanam ñu yokk valeur yi sunu niiteef gën a feeñ itam ñu bañ ñu bàyyi fitna ci wax ak ci jëf parce que li ñu war a jiital mooy tabax réew mi ci jàmm ak déggoo bii le visite si kër archevêque bu ndakaaru bokk na si tourne bi nga xam ne nii Cheikh Hadjibou Soumaré moom lay wëyal di def si këru diine yi ngir rek sàkku ay ñaan waaye tamit lii di ay conseil si noonu sax kii fi nekkoon ni limaanu jëwriñ yi di Cheikh Hadjibou Soumaré fas na yéene rek jàkkaarloo ak as waxtaan ak ñoom si bés yi ñu dëppmal Cheikh Déthié Law Seck dëddu na parti démocratique Sénégal ñëw wala si ci parti APR bu Macky Sall ci am ndaje nag mu yaatu woote woon fa la ci nguran ca Kébémer moom njiital passation des marchés ca caisse de dépôt et de jiit jiitit mouvement initiative républicaine xamle na ne njiital réew Macky Sall liggéey na ci réew mi loo xam ne nii kull kuy doomu réew mi wargal la ci moom nga jàppale ko dañuy dem ca Ngourane fekk fa Omar Kayre Cheikh Dethialaw Seck nekk directeur passation des marchés ci caisse des dépôts et consignations daal di nag rejoindre mouvance présidentielle bi ak mouvement bi di initiative républicaine li tax nag mu ànd ak Macky Sall nee na du lenn lutul liggéey bi nga xam ne def na ko fi bu mu faloo ba léegi. kii nekk njiitu réew mi ma xool ci cinq yi mu fi toog ca dëgg dëgg dëgg. loo ko contre contre contre loo ko bañ bañ bañ bañ di nga ne ay lay yéen jàmbaar mooy ki nga xam ni Sénégal ba mu daj bi lu ci gën a sax mooy ban mooy Sénégal ak Gambie nga bëgg a jàll Ziguinchor école yeeg université yi anañu alors bi ñu pesé sous pesé ñu ne ay lay yéwén dootuñu seetaan nag di risqué di fi jógee benn homme de valeur bu noonu di asaaloo suñu réew dañu ciy jàpp bu baax baax baax a baax. nag dañ ko mës a xamee ak parti démocratique sénégalais waaye Aliou Sall di maire bu Guédiawaye nekk tamit membre ci biir APR ne loolu jeex na bisnik tey. barke démb am nañ nouvelle bu neex muy l'adhésion de Modou Diagne Fada à la présidentielle. ma ne waaw buñ ñëwee ci Kajoor fekk fi jàmbar yi ma fi lim sànq fii ci Kébémer Modou Diagne Fada ñëw fekk si leen tey nag ñu am ki nga xam ne moo mottali mbir yi muy Cheikh Déthié Lal Seck mun naa wax ne la bataille de Kébémer vient d'être gagnée définitivement cet après-midi la victoire et l'honneur reviennent à Cheikh Dethialaw Seck euh, sa ñëw bi am na xorom sa ñëw bi am na solo. ministre Ndeye Marième Badiane Abdoul Aziz Mbaye ay député yu bokk ci mouvance présidentielle bi ak coordination départementale bu APR ñoom ñëpp ñëwoon nan fekke ci rassemblement politique bi nga xamee ne amoon na ci nguuraan di commune boo xamante ni mi ngi nekk ci département bu Kébémer ci arrondissement bu Sagataguet Oumar Kayre Louga Walfadjri yi jërëjëf mbokk yi ñëw ci xibaaru euh, tàggat euh, yaram tey nag dañ koy door ak li nga xam ne moom mooy euh, basket ñu ngi woon ci demi-finale play-off ci wàllu jigéen ñi fële ca Ndar beneen demi-finale ba kii di Saint-Louis basket club moom mujjee na jàll qualifié li nga xam ne moom mooy euh, final naka dem fekk ca final ba équipe bi ñuy wax duc bi nga xam ne qualifié woon na moom booba waaye nag nekkoon na benn match boo xam ne kii di Saint-Louis parce que club ville de Dakar la éliminé fële ca stadium Joseph Gaye waaye nag ndéem match ba jaaroon na yoon neexoon na waaye nag am na lu ci ñuul moom mooy xeex yi fa amoon dañu def rek dégtal leen ki nga xam ne mooy tàggat. équipe bu Saint-Louis basket club bi di Jupiter ñaar ci micro Gabriel Barbier. nag sant yàlla li ma ci mën a wax mooy dàggat bi ba ci am mooy discours bi parce que avant match bi il fallait ñu tenir un bon discours par rapport ak euh, déroulement match bi xamoon nañu daanu jouer match bu métti ak ville de Dakar parce que aussi qu'on le veuille ou non c'est une grande équipe maintenant il fallait être très costaud en défense. ne pas lâcher adit lu mënti am rek ñu bañ a bàyyi xam ni au fil du temps au fil du match il faut ñu yóbbu leen à l'usure pour mën leen gagner waaw xam nga soo joué ak équipe boo xamante ne aussi dañu bëri ay sànnikat il faut nga changer option parce que fay il fallait ñu miser suñu défense ba pare balaa ñuy balaa ñuy réagir par rapport ak offensivement donc défense bi la ñu waxoon nañu réalité bu gën a baax défense bi baax na maintenant nañu sant yàlla rek kon jëf Jupiter Niang di tàggat équipe bu Saint-Louis basket club ci micro kii di Gabriel euh, Barbier dañuy desandi ba léegi ci wàllu euh, basket ci li nga xam ne mooy championnat bi euh, lii di deuxième phase bi mooy play-off yi septième journée bi ci wàllu góor yi dinañ ko amal tey jii ci stade Marius Ndiaye foofu nag bu juróom benn waxtu jotee US Wakam mooy daje ak militaires yi ASFA ca Ndar ñaari jongante moo fa am bu ñeenti waxtu jotee. SNBC mooy seenu basket mooy dalal euh, DUC bu juróomi waxtu ak genn jotee UGB mooy daje ak douane Louga nag foofu bu juróomi waxtu jotee saltige mooy dem fekki Louga basket euh, club buñ ci jugee dañuy ñëw ci football euh, delluwaat ci coupe du monde bi ñetti arbitre yi nga xam ne ñoo fa maanaam nekkaloon Sénégal mu muy Malang Diédhiou Djibril Camara ak El Hadji Samba gannaaw bi ñu teeru teeru bu am solo fële ca euh, altine jële ñu génn tey jii nag lañ leen di sargal sargal seen euh, arbitre Sénégal yëpp leen di sargal tey jii fële ca messe des officiers foofu lañ leen di euh, dalal sargal leen de ñi leen di sargal nag bokk nañ ci nag jawrin bi yore wàllu tàggat yaram ci fédération sénégalaise bu football di Augustin Senghor boole ci tamit ki nga xam ne mooy Mamaya seen di patron arbitre Sénégal yi kon nag tey jii dinañ sargal ñoo def jaloore ci euh, lii di coupe du monde bi am ñetti mat arbitré ñetti mat loo xam ne guléet la arbitre africain mësu la arbitré maanaam li nga xam ne mooy ñetti arbitre ci coupe du monde kon nag tey jii lañ leen di euh, sargal buñ ci jugee wax wàllu euh, nawetaan stade Iba Mar dañ ko tëjoon ngir xeex yéeg waaye nag préfet bi nee na dinañ ko ëbbi ngir waa nawetaan waa ODCAV bu Dakar mën ci amal seen ay jongante moom tamit démb ci CRD bi ñu amaloon ci wàllu nawetaan lii nga xam ne moom mooy préfet bu Dakar wax na tamit subvention yi nga xam ne dañ ko téye woon ca mairie bu Dakar xam ngeen li fa xew euh, loolu tamit danañ ko jox waa nawetaan dañuy def rek delluwaat ca CRD ba déglu ki nga xam ne mooy préfet bu Dakar kii di Alioune Badara Samb ci micro Nafi Amar Fall. wàllu subvention boobu nag du ma ci sori trop parce que muy mbir la boo xam ni euh, ville de Dakar moo ko seq ak euh, mouvement nawetaan amul difficulté sax parce que représentant ville bi ci boppam yéen a ko déggal seen bopp moom nee na dinañ def tous les voies et moyens pour que cette subvention puisse lever ay détails yu ndaw ndawaan yoo xam ni peut-être daaw ak difficulté yi ñu amoon ci nawetaan moo ko indi. mais comme moom waxal na ko boppam ci kanamu ñëpp ñun daal en tout cas lépp loo xam ni mën nañ ko ci def pour faciliter les relations daañ ko ci dox parce que engagement bi au niveau de la ville jël nañ ko li ci ëppoon solo également mooy yeneen point nga xam ne évoqué nañ ko bokk na ci stade Iba Mar xam nga stade Iba Mar daaw dafa amoon ay fitna yu taxoon préfet bi jëloon benn arrêté pour suspendre match nawetaan yi foofu lool nag lu jaadu la parce que nawetaan dafa war a dajale ay nit boole ay nit noonu lañ xamee woon mais bu demee ba jut fitna yoo xam day indi problème loolu day jaadu ñu jël décision yi. je crois que le coup est déjà marqué la ca des mooy jël lañ décision revenir ou retirer euh, abrogé boobu. bu ko ñu mën a donc jouer ren parce que dañ doon obligé génn Dakar dem di jouer ba Pikine sa xam nga loolu fuite la doonatul njariñu euh, alors euh, jeunes yi sa président ñu loolu. dina laaj nag effectivement lu ndaw loo xam mënta ñàkk mooy dem ci stade bi xool difficulté yi sa nekk xool yan aménagement la ñu war a defaat de manière rapide pour rendre le stade beaucoup plus opérationnel. revenir nag ci fondamentaux parce que bu ñu nee nawetaan ci nawet la jógee nawet yaakaar naa Sénégal juillet août septembre lu premier octobre ba octobre mu daal di jeex léegi nag bu fekkee nawetaan dañ ko taw mu gudd dëgg la infrastructure yu doyul mais war nañu réfléchir pour xool naka la ñuy trouver solution. kooku moo doon Alioune Badara Samb di euh, préfet bu euh, Ndakaaru dañuy des ba léegi ci CRD boobu fi Amar Fall tàllal na micro kii di euh, Momar di président ODCAV bu Ndakaaru laaj ko naka la nawetaan di tëddee ci at bile ñu déglu Momar suñu diggante ODCAV ak conseil départemental de la jeunesse boo wax nañ président bi ne ko ñun on est disposé mettre en place benn comité paritaire ODCAV de Dakar ak conseil euh, départemental pour qu'ensemble ñu mën a réfléchir sur le plan d'action annuel sur les questions d'enfance sur les questions de la santé de la formation de la sensibilisation sur les sur, sur certaines maladies comme ay ay ay euh, sida paludisme cancer et ainsi de suite ñu mën a def un plan d'action d'ensemble ak waa département Dakar mu nekk un plan d'action rigoureux mais structurant ñu mën a dérouler au service des populations. ajuma bii mën nañu def tirage zone bi xam nga la wax saison sportive et des activités du mouvement navétane avec l'ensemble des treize zones du département de Dakar le 27 ñu ubbeekoo par la coupe fair play entre euh, Diapo de la Médina ak Damels pour renfor euh, euh, raffermir encore les liens de fraternité de joie et de fair play surtout de fair play entre les ASC de la Médina bu ñëwee le premier nag def la finale départementale bi nga xam ni euh, depuis daal la am mais volontairement nous avons choisi de le jouer euh, à Dakar pour permettre la l'ouverture du stade Iba pour que jeunesse su Dakar bi mën ko vivre dans le département bi nga xam ne ñoom fa lañ fa lañ màggee jërëjëf kooku moo doon euh, di euh, président ODCAV bu euh, Ndakaaru dañ koy jeexale ak athlétisme championnat championnat yi nag championnat national d' athlétisme yi nag dina am ci stade Léopold Senghor le 20 ba le 22 dinañ ci xaar nag ñaari téeméeru. Euh, li nga xam ne mooy athlète yi nga xam ne dinañ ñëw bokk ci jongante boobu dañ def rek dégtal leen kii jiite fédération sénégalaise bu athlétisme euh, muy Sara Wali ci micro xadisi la suñuy athlète sénégalais la ñu ngi France il faut ñu passé leen ñëw ak officiel yëpp di jël yëpp en charge donc moo xayma budget bi daal entre quinze ak million la pour yi ñu ngi fi ndax mu loo ko def sam taataan bu baax mu mënuloo def athlétisme te fajowuloo mënoo def athlétisme te amoo entraîneur yu baax ba tax na projet euh, piste bi ñu ngi ci projet jël en charge yi leen it aussi à travers un centre dañ bëgg créer benn centre fii Iba Mar Diop tabax ko ba nga xam ne dañ ci fay def ay lal yëpp di fa héberger xale yi ñu mun a entraîner à côté ñu leen toppatoo ndax actuellement nii monde boo gisee pays yi nga xam yëpp ñu def performance ci genre centre yooyu lañ nekk bàyyiwuñ leen ñiir nii rek ñuy traîner di entraîner seen di entraîner jëm seen kër ak ñëw boo xoolee cartographie athlétisme sénégalais ñi ñi ñi nekk ndakaar ñëpp ci région yi lañ jóge boo xool te bu ñëwee bu ñu jógee ci région yi ñëw fi du fu ñu dal xam nga du ñu am fu ñu dal moo tax ñu créé bëgg a créer centre boobu pour mettre leen dans de bonnes conditions. doon Saare Waly di jiite fédération sénégalaise bu athlétisme mbokk yi lii moo fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram di leen jox dig daje. bu subaa jërëjëf. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbi sa génn ñaar lu xaju xibaar yi tey jii benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la dalli nag jàmm waaye tàngoon na jër démb ca tribunal ci procès appelu Khalifa Ababacar Sall Walf Quotidien di ñu xamal ne càkkuteefu avocat Khalifa Sall jéemoon ci liberté provisoire maanaam bàyyib négandiku daar daaru Khalifa Sall loolee mujjuta sotti juge Demba Kandji moo ko mujjee gàntal yéene cabinet waaye waxoon na xatt ci moom ndax ay avocat défense bi maanaam avocat Khalifa Sall amul lu ñu waxul juge Demba Kandji ak Lansana Diaby bu ñu sukkandiko ci maître Ousseynou Fall di kenn ci avocat Khalifa Sall ma jàkkaarloog juge Demba Kandji xamal ko ne sàmm sa carrière lu doy waar warta tax ngay dugg ci yenn yi di ko jëfee maître seenu Fall xamal ko ne maa ngi lay xool bët ak bët waaye nit day am jom avocat Khalifa Sall ne jomb na def yenn yi ne doxalin gu mu gis ci wàllu magistrature bi loolee waral mu tekki ndombal tànkam daal di sol robum avocat am gannaaw bu mu gisee ne ñenn ci magistrat yi dañ leen a ger Walf Quotidien ñu xamal ne kaddu yi bawoo ci maître Ousseynou Fall gësamoon na lool tribunalu Ndakaaru yéen a kabidi Le Quotidien génn gu fa di ñu xamal ne juge Demba Kandji bàyyiwul benn yoon Khalifa Sall mu génn kaso téye na ko ndungu siin jëfewul benn yoon dogal atte bu CEDEAO bu ñu sukkandiko ci juge Demba Kandji mi xamle ne arrêté CEDEAO amul njeexital ci dossier Khalifa Sall munta tax Khalifa génn kaso keneen ku jël kàddu ca tribunal démb di procureur Lansana Diaby mi le ne mosta sàkku libération Khalifa Sall sa wax ne xalifa Sall day génn kaso daal di joxoñ baaraamu tuuma ay avocat Khalifa Sall ña ñëwal bëti kàddoom wax ca lu leen neex lëndëmal xelu askan wi ngir beral loxo seen client maître Ousseynou Fall di ko feelu jàkkaarloog juge Demba Kandji di ko fàttali ne keroog bi nga yëkkatee sa di waat jafe-jafe tey Vox Populi di ñu xibaar ne juge Demba Kandji tas na yaakaaru maire bu Ndakaaru Khalifa génnagul kaso moom juge Demba ne bëggatul dégg arrêté bu CEDEAO procureur général Lassana Diaby jot naa seetal boppam ca lañ koy tuumaal ne moo fi sàkku woon ngir Khalifa Sall génn kaso Lassana Diaby ne mosu cee wax keneen ku wax ci wetam ci biir yéene kaabi di Vox Populi di maître Ousseynou Fall avocat Khalifa Sall daal di xamal askan wi ne yoonub Sénégal maanaam justice su Sénégal dañ koo ger yéene kaabi di les écone maître Ousseynou Fall yemu ca daal dina joxoñ baaraamu tuuma magistrat magistrat yi xamal leen ne nit day am jom te ku nekk ak sa bammeel ne ana ngor juge Demba Kandji daal di métti lu kaddu yi ni mel ne warutoon te jaadutoon àndut ak teggin yéene cabinet ci audience gi ni mel mu ñeel procès appelu xalifa Sall mbooloo ma fa woon ca biir salle jot nañ fa yuuxoo juge Demba Kandji ba mu mujjee dakkal audience ba ci saasi am ñu mu génne ca salle ba procureur général Lansana Diabisi bi métti lu lool doxalinu avocat xalifa Sall ne dañ ko sosal dañ ko waxal lu mu waxut kenn ci jegeñaale Khalifa Sall wax na ci biir xamle ne dañuy fab seen liberté daal di ko jox Khalifa Sall Youssou Mbow ne yaakaar bu tas la am ci bile procès ne politique dong moo ci la ci biir yéen a bi maître El Hadji Amadou Sall ma ngay fàttali ne atte nit ci turu askanu Sénégal doonut ne da ngay sànk kookee ci turu askanu Sénégal maître Ousseynou Fall ne lii moo tax buguta doon magistrat bañ ko gàkkal daram lam ca toftal moom maître Ousseynou Fall ne dara saxul te lu mu yàgg-yàgg àddina day jeex kenn ku ne di nga wéet ak sa bàmmeel réew mi koti genemangoog moom Lansana Diaby di procureur général la mu xamal askan wi démb ca tribunal mosta wax ne nañu génne Khalifa Sall ci kaso bi yéen cabinet moom Khalifa moomule mujjut a génn kaso démb ndax lii di cour d'appel jëfewul benn yoon dogalu àtte bu CEDEAO yéen cabinet du Sud Quotidien juge Demba Kandji faf na sax xotti taret googule arrêté bu CEDEAO ne amul njeexital ci bile dossier Khalifa Ababacar Sall juge Demba Kandji ne cour bu CEDEAO du cour suprême fédéral a tim justice bu Sénégal yéen cabinet ñu xibaar ne Khalifa Ababacar Sall mujjut am liberté Sarr mujjut am bàyyib négandiku génnul kaso yéen cabinet juge Demba Kandji tas na yaakaaru Khalifa Sall te lu aju ci dogalu CEDEAO bëggatul ku ci wax googule dogal tege na ko wet yéen cabinet Khalifa Sall ak ñamu àndal cassation lañ jëm yéen cabinet la Soleil xëy taxaw ci googule procès appelu Khalifa Sall ak nañu gantale dogalu CEDEAO bu ñu sukkandiko ci maître Ousmane Seye di kenn ci avocat nguur gi xam le ne bile dossier Khalifa Sall rawatina arrêté bu CEDEAO dencee rax lu Ousmane Seyne jot nañu wax li ci am doore ko ci jalgati alalu réew mi ba ko ñaareel di njuuj njaac ak jalgati ba ko ñetteel bokk ci ay defkatu ñaawteef ba ko ñeenteel di lewal xaalis bu lewul maanaam blanchiment d'argent maître Ousmane Seyne nañu wax ci yile tegu ci ndoddu Khalifa Sall l'observateur feelu ko ne Khalifa Sall génnagul ca caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru amagul afiya juge Demba Kandji jot na xotti taret arrêté bu CEDEAO jëfewu ko benn yoon ndax amul njeexital ci dossier xalifa Sall direct info mel ni ku xàmmeetul Lansana Diaby ne kan mooy Lansana Diaby procureur général gannaaw kaddu yamu jot a yëkkati keroog ci dossier Khalifa Sall doon fesal génnum kasoom démb mu mel ni ku ne waxeet ne mosta wax ne Khalifa Sall day génn kaso direct info ne ana ci ban Lansana Diaby la ñu war a sukkandiku maître Assane Dioma Ndiaye jot naa ñaawlu doxalinam yéen kaabi di l'exclusif ne tey ma wax leen li sànk Khalifa Sall bokk na ci Ousmane Tanor Dieng ak njiitu ma woon Abdou Diouf yéen kaabi ñoom ñaar ñi le ñoo tax ñu tey Khalifa Sall ca kaso ba maître a a moo di ne kii di procureur général Lansana Diaby ca tribunal gamu ne moo fa teewal APR source aané avocat défense bi avocat Khalifa Sall rawatina maître Ousseynou fal ne bu doonoon lamb yóbbu nañu démb juge Demba Kandji Ardo Dakar Times li ñu xamal ne ci élection présidentielle ñu jëm njiitu réew mi Macky Sall bu deful ndànk deuxième tour la jëm gannaaw gëstu gànca amal maanaam sondage yi woon na ne njiitu réew mi Macky Sall doole gamu amoon ci atum 2012 bi la yoon wàññeeku na gàddu élection présidentielle ci premier tour du mun a sotti ci yile wote tànneefu njiitu réew ndax téeméer boo jël fanweer ak teg ñoo ko war a woteel maanaam 30 virgule 1 pour cent yéen a kaabiri source a xëy dalal Pape Samba Mboup mi déggal ne Karim Wade ci élection ñu jëm du ca bokk waaye bu weesoo plan A bu PDS yéen a kaabine ba tey Abdoulaye Wade ay pexem jeexagul bu ñu sukkandikoo ci Pape Samba Mboup mun naa sàkku ci PDS ñu du mooyu élection yi ñu jëm ba ko ñaareel njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade mun naa samp kii di Cheikh Adjibou Soumaré wala fegoog Boubacar leneen ci ay kàddoom ci biir yéen a kaabi la woote su boobaa na askan wi jogtaal liste électorale yi Pape Samba Mboup ne ak li munta xew maître Abdoulaye Wade warte yee fitna ci réew mi yéen a kaabi di Walf Quotidien verdict bi ñëpp di xaar jëm ci atteb imam Alioune Badara Ndao ak ñamu àndal te ñu tuumaal leen ci mbirum terrorisme yéen a kaabi ne verdict ba tey ji lañ koy xaarandi ci alxamis gi tey la ñu xam ëllëgu imam Alioune Badara Ndao ndax day des kasoom déet wala day ñibbi këram ñu dem ci yéen a kaabi di suñu lamb mi xëy dalal roi des arènes bombardier yéen a kaabi di ñu xamal noppi Bombardier ay kàddoom ci suñu làmb wax ne combat gi ni mel ak la mu laaj pare na ko ne la ko yitteel mooy ndombal tànk roi des arènes bañ a jóge ci ay loxoom tàbbi ci keneen. jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo gi mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane ci kàddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak yàlla noo ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal